waay ngeewal waay fii mooy ngeewal installé sabar kay to do ñew jarul jarul jarul jarul installé jarul installé man man man man man man li motax man neexuma deret suma waxe ñu ne ma da nga bari wax ta limay may kaas yëpp dëgg la defe nga ne ba heure bi heure bi heure bi xana kay kuy wara ñew sax di di di di di liggéey ci war nga ñew xola man man man man man man man man man man man man man boy man dogo dogo ayca ayca ayca ayca ah, ku ci ne ku ci ne ana booy waaye ma waay yow xam nga xam nga xam nga man chaque jour dama lay wax samay wax nga ne dama naqari deret mais buñ demee ba ci biir lama wax rek ngay gis mais booy ma wax leen lu leer lu leer ni leen foo leen foo leen nekk ba heure répétition ci leen ñëw booy ñu ci lu leen neex ñu ngi ci lu leen neex. aal ma gerañ boobu aal ma gerañ boobu. aal ma gerañ boobu aal ma gerañ boobu. wuyu ma xam nga liggéey moom. léegi voilà. billahi bu nu bu nu yaakaar réew ah. dañuy. répété waxi nit la wala waxi la. mooy dox foofu. kaay nii. loolu la. xamale la. mënuma digérer man xaalis dugg sa papa loolu yow yow yow yow yaay man maay yow di yow ma yaakaar ne ku nekkaa ma war a atte ñàkkal ba mu des yow seex dugal kooku dinañ ko réglé. waaw kay saa yi am. le wuy ma ñëwal ba nu pare nu réglé loolu ñëwal ñëwal ñëwal rek ñëwal rek wuy ma fu fu fu fu ñuy tàmbalee daa ngoo góor eh daa ngoo nga ñu yóbbu ma lamba ja waaw dimbali ma nga naa ma ay bu kenn tëgga bu kenn laal ñu nga naam rek mbaaya mbaaya mbaaya mbaaya mbaaya mbaaya sa affaire reewande yi téye ko ah déet déet déet waaw yow looy tëgg ni xola xola mbaccaxu mbaccaxu gunnu raja ke caag caagaar génn génn raja kenn oh ah oh, oh, oh. booy bu ci yaakaar ne yow la ñuy xaar da ngay nax sa bopp. mu ne Amet gën a tëgg lan la. kan ak kan Amet. ay ñebe rek gën a tëgg. ay ceebu ñebe rek. dama nelaw mais. ma répété daa am. bàyyi lekk bàyyi lekk. yow yow war ngaa toog fi ne répété am na. yow mënoo nekk nit. ba ba répété woon nañu. déedéet Modou Modou ah. ñun duñu leen woo. démb bi ñu fi jóge fii luñ waxal lan laa yàq waaye ah, Ameth xam nga lan la geleñ yi yow jëndoo ko ñun ñoo jënd geleñ yi dégg nga Ameth man yow la de yow la rek yow la rek Ameth ba nga nekk yaa yaa fi man ba léegi dafa rakkaaju loolu dong la loolu dong la ci lan ci lan ci lan waaye dimbali ñu yow moom yow moom yow moom yow moom yow gis nga gis nga dogo dogo dogo may may ma may ma lii moom war a ko indi répétition dogo lii du yoon de dogo kii dañu insulté daa nga seetaan film biri si li kim doon kim doon jël dernier dernier combat bi njool mi lu la réer ci kooku xool ko ci sa tooma mi aktor ban bo mako waxate man dama lay ñuus boo ma ko man ñuus la man mana ne yaa doon xeexal birisi li yaay acteur bi bawa boobaa la ticket bu lamb ma ñuus la ticket bu lamb ma ñuus la yow yow yow kii yaroo ko waay édikel bu particulier la nga nga ko ko ba du service 2000 nga teg sa génn lay wax lay wax war naa indi caleçon répété xoolal li eh, du jug du jug kan si yow man bu ma dawee Maroc yow yow yow bu ma dawee Maroc fu ma la ma dawee Maroc fan laa day am eh, eh, eh, baal bongo yi sax baal bongo yi baal bongo yi tam léegi ma baal bongo yi lépp ak yow lépp ak yow nan répété non déedéet lépp ak yow léegi dañoo ne si projet lépp ak yow nan répété tam jugal di nga mën a tëddi kay calson du ñëw répété calson du Ah. lekk na ñaari junni kan ak kan kan ak kan ñoom wala man wala ah na ah, reer de ayo gaale ci ñëlé mooy lan ayo mooy lan boy wa wa wa waxal ak Bisatel, bisatel. fecc da am daaneel boo demee ba mu jeexal ko njeexintal gi da da ngay demee benn côté mais da nga da ngaa jañaxu rek dem. ba baal jañaxu. la foo la fan. dooree mi fan dooree mi fan noo def noo def. mais dama dama mais nag bi ngay jeexal jeexaloo trois da nga yokk quatre waaw déedéet waay waaw lamb rek la demuñu si lamb. déedéet eh déedéet dama la kaa ku loo loolu laa la wax. dooruma la gis naa la. Seex wanal paa yi li nga mën a waay. déedéet déedéet wuy ma. bii yow sa bosa waa kay xoolal xoolal xoolal seex seex kii non non eh, non non d'accord booy jóg del tàggoo waay de ànd naa moom de ànd naa moom la individuel la. Ah, moom te ànd ànd nga ak moom ànd nga ak moom ànd nga ak moom sax. raw la benn paa mais individuel la non ànd ngeen bi mu yëkkatee tànk gus bi na nga ko réeré mër foofu la. waaw bi bàyyi mi faa ji. doore woo mi faa woo déglu rek. individuel la il ma dencal la. bàyyil ma dencal la ah demal. demal rek. père kooku soo bis la de soo bis la demal rek. papam ñooy am. non moom ak papam ñooy am moom ak papam ñooy am. déedéet waaye nag oh, waaye. taxawal rek loo xamante ne nii tamit jaarul. yow léegi yow Abdou Jambaar yow foo daw jëm Abdou Jambaar yow foo daw jëm. non non xam léegi nag buñ leen ma Cheikh kii man man man man kii bu ñu paree doo ma waxal kii nga ko jël tege ko nele bàyyi ko da lay yem ma ma ma muy maye dix mille ak caleçon ak fayda loolu dogo ngeur mais eh, eh, sow bis la yow woo nga toxma sama dix mille ale woo naa ko Cheikh kooku sa dernier la léegi taxawel nii eh, ñu xool ndax li nga di xool ndax li ñu def baax na ki ki ki ko ba ba ba ba ban la. déglu rek déglu rek. bu ñu njëkkee woon. premier premier parti. déedéet ah du boobu de. dañoo engagé si seen programme bàyyi leen. waay waaw waaw waaw waaw waaw boobu la. defe naa moom la de. jébbalul ba ni bay jaraa fa ko jébbalul ba ni waaye defal nank rek am xaaral rek may na boobu moom moo yóbbu ma fii arawal njaayo oh, arawal njaayo foofu. seex bii baax de. ah seex ah, waaw bii baax baax bii ah. nga baax. Eh, bii baax ah. aroon njaar bi moom d'accord naa moom. ah bii moom d'accord naa moom bii moom bii moom. ah mi ngi ñëw. waaw Modou. foofu foofu baax. waxuma kii nag de waxuma kooku. waaw déedéet waxuma Abdou Jambar de. Abdou Jambar bàyyi ko bàyyi Abdou Jambar. waaw na leen rek. kii la da. foo jëm. dana rooti woon teenu bay jaraaf teenu naan ah di naa la waa yàlla ba ma neex ma teen du ma teere juddu ni nga juddoo màgge ni nga màgge te soo jëgg gisee toog si diggu tool taxu te yabu nag ñu ne ne ko yaay maa la man kenn du ko wax ku nekk xam nga ku la man dog ko dul nag dogo am yaa ilaha illallah am teel la fatal la fatal la fatal la rek waaw waaw loolu waaw foo bëgg bu subaa ñëw waaw am na mi bu ñëw ah man tudduma la de man tudduma la tudduma la tudduma la Abdou Jàmbaar lekk kon yaa solo Abdou xo gestu ko lu mu la nuru. gis naa ko de. ba xeex ak biir Syrie rek la la jox. baal xale yi. baal xale yi. Ah. xale yi waaye yow tamit. kon kon tëjal tëjal ab. tëj bi waaw. Ah. ne leen ana ñu ko bëgg. maa ngi nii ne leen. waaye ndomba kay nekk suus ngeen man ah ah Modou waaw jàppal ma sama baaraam bu mag boobu ndax mi ngi ak man waay bi waaw boobu boobu bi mi ngi yëngu ah. ah ay lamb na ko sax jàpp na ko mi ngi ñëw mi ngi ñëw ah mi ngi ñëw di gàllankoor kon mi ngi fi dara dara dañuy war dem na amet amet bàyyil amet bàyyi rëquma amet rëquma damu baabay waaye amet rëquma amet bu bu bu feebar bu bu leen fenn ah bu programme bi mu ngi waaj jub si de programme bee nga waaj de bu fi rëq bu faat lekk ngeen avance. ah. ah loolu bëgg na neex naa dégg. <laughs> tey dañuy dogu. waaw rompe leen ah, wax na de. ah, ah ñaareel wax na rompe leen. ñaareel ragal ñaareel. nit du nit du jeng. déedéet góor du jeng. jenguma sax. da ngaa jeng kay. waay ngeewal. waay fii mooy ngeewal. mu